بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشياطين الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن أحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي ak mbokki taalibe yi ak mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak fu waay mën a nekk ci réew mi mbaa mu génn réew mi rawat na Sénégal gi rawat na Thiès noo lay siyaare di wax yàlla na yàlla defal jàmm yéen a ngi dil siwaat dégg maam seen xarit seen soppee dégg nga di Cheikh Ousseynou Sy naaru borom Touba fii ci seen émission bi ngeen di ànd ak moom muy émission jàmm du doy fii ci Prestige TV dégg nga di ko ànd ak suñuy caméraman waaw sëñ musa Mbaye Cheikh Fall ànd ko dégg nga sëñ Modou Aïssa Mourid Sadikh waaye ànd ko Papa Sow dégg nga ak Papa Laye Diouf dégg nga waaye ñoo ànd ak Satirna Ndione di ànd ak dégg nga waa Prestige yëpp waaye di ñaanal dégg maam Pape Doumbia mi nga xam ne moom mooy boroom télé bi yàlla na yàlla yokk fanam ak wéram yéeneem yàlla na ko yàlla matal ci barke Cheikh Khadim ba télé bi dégg maam fu ñu ci bëgg a yegg na fa àgg dégg nga ba rajo bi tamit lépp dégg maam mën a sotti dégg nga di ñaanal mboolem technicien yëpp dégg maam bàyyiwuñu kenn ak sunu xarit yeeg sunu wëllër yi nga xam ne ñuy seetaan te wax dëgg yàlla bu nu sañoon dégg nga ñu jël téléphone di wax ak ñoom en direct waaye lépp dina ñëw bu soobee yàlla di wax na tey jii nag noo ngi siyaare bu baax sëñ Muntaxa Basiir dégg nga ah, mi nga xam ne mooy ah, sunu sëriñ suñu yaakar yalla na fi yalla yagal te wér ko sëñ Cheikh Jëmb Fall yalla na fi yalla yagal te ko di siyaare bu baax sëñ Saliou Touré mu sëñ Saliou Mbacke mu Xaadimu Rasuul waaye noo siyaare Cheikh Ahmed Tidiane mam sek ci ca ba di siyaare deg mam ki nga xamne ki moy ah suñu baay bu baax bobu de nga xamne ne Jibril Wan noo koy siyaare bu baax ak Ceerno Abou di siyaare Ceerno alsan Diallo de nga ak ibrahim ak njabotam gi yep waye bàyyi wunu de nga Serigne bar Cissé noo koy siyaare bu baax ji munirun jegen fii dégg ma ci ci kër ma ji noo ngi koy siyaare bu baax waaye noo ngi siyaare waa Njaasaan gépp nu kenn ak waa Laayeen ni ñoo ngi leen di siyaare ak ñaseen yi dégg nga di siyaare képp koo xam ne kii dégg nga ci ummati bi rawatina nag dégg nga maam ah, ki nga xam ne sëñ Mbay Si Mansuur dégg nga ca Tiwaawoon ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare di wax ne nag ñoo ngi war a dugg suñu émission tey jii waaye dañoo am gan gu mag di suñu doom di ku baax di jànkatu xasida di koo xam ne kii sëtu Baye Naar Seen Baye Naar Seen moom Serigne Fallou kenn ku ne xam ne Baye Naar Seen xaadim ak sa seen mii dégg nga sëñ Aliou dégg maam Seen mooy wuy juróom dégg nga sëñ Aliou Seen moo bokk ak sëñ fàllu Seen di suñu xare ak njaboot yëpp nga xam ne suñu baay boobu dégg maam sëñ Fallou la bëgg ba jeex njabootam gi kon kii nga xam ne dégg maam mooy sëñ ak saa mii dégg nga seen nga xam ne yàlla def na tey moom la ñuy dalal kër daara sëñ Souhaïbou Mbacké fa la jàng itam kon noo ngi ñaan barke borom Touba émission bi ñu ànd ak moom yàlla na nu yàlla defal dégg jàmm ak xéewal ñoo ngi jub dégg maam bis bu tedd bis bu barkeel mooy lan poroxaan la cinq dégg incha allah dinañ ci ñëw kon su ko defee ah sëñ xaadim ak saa dégg nga kon nga nuyoo ba pare dugg ci émission bi. وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من هم الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هاديا رضا بارك في عبد الخدر ا نغ نيو مبوك جولدي دي نيو مبوك طالبي ا دي جيتال نيو بي سي سونو سيرن دي خليفه يوني مريد di sëriñ Muntaxa al Karim moom Cheikh Bachir ko ñaanal gudd fan ko nag wér di siyaaret xalifa e, yoonu e, kër Cheikh Ibra di sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak mbooleem taalibe Baay Faal yépp Baye Ousseynou maa ngi lay siyaar baax maa ngi lay siyaar baax di siyaar baax nag e, murid yi sadiq yi gaa yu baax yi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéey bi caméra bi waaw di doxal liggéey bi di ñaanal suñu borom doole leen kattan ak tawfiix maa ngi leen di siyaar baax tey bi bég lool ci am mbégte mu mu kawe mu rëy ci e, invitation bi e, ngeen may invité ci tere bi di prestige e, di ñaan suñu borom dolli ko yëkkati ko waaw fi borom bëgg mu àgg fa mu àgg fa kawe njortam ci barke bi rasulullah waaw bég naa lool nag ci invitation bi ah, waaw naa ci lool bég naa ci lool waaw waaw kon euh, jërëjëf sëñ Xaadim euh, kon su ko defee rek dañoo bëggoon nga ubbe de mu am ci xass de rek de nga suko defé de nga nañ dem ci kanam inshallah dañu dugg nak galal ci mam jaara waye nak xass de de mu am xam nga rek comme temps bi mom mo xaw gatt waye nak ñu teunk rek inshallah wa waa bismillah wa wa bismillah yo xam nañ la xam nañ sa talent hmm. ya wa bismillah يا زيدا في المال خال سرواه ويا محبا فؤادي دهر مصواه يا زينب المالي خالص ارواحه ويا محبا فادي دهر مصواء إني أتيت لوجه الله ساحركم أبقي بين إلى ما أرجو أخواه حمدي وشكري لمن كل سارة لحور دون سخت عند سرسارة له وردوان بلا سخط مسخدل من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من حتانا فيها جمع من سارا إلى رسول سرسار خد خسر سيارة الفارخ دارين أو سارا سيارة فرحة دارين أو وسارة سيارة فرحة دارين أو وسارة سيارة فرحة دارين أو وسارة سيارة فرحة دارين أو وسارة يا مالك الملك يا من جلان خوادين ارحم جميع الورى يا هادي الرضا Ah, bayu senu no ngi ñaan ci barke xassay gi gogu nu ibe nga xamni day may hamdi wa shukri man kulli bi ishaara Sëñ Tuubaa neena kep ku ko jang ben yoon melna ni euh ah, ah, kuma fekkoon ca sarsaara sara ziarima te ba xama fe ba jamono jojja Sëñ Tuubaa waxoon ne ku ko ko fekk rek am nga faal xool daari na ishaara voilà dégg nga te bobu fekk na xam nga nit ñi tubaab bi koom-koom la bëgg waaye booba gerte yi dégg maa ñu ngi tóor tóor fii lañ ko bàyyi dem gànnaar dégg nga waaw jërëjëf kon su ko defee rek dégg nga noo ngi sant bu baax a baax dégg nga ci xasida googu nga ubbee waaw sëñ Xaadim Akasa yow euh, da waaye kañ nga koo tàmbalee roy. waaw waaw waaw sëñ euh, euh, ko tàmbalee roy ci ay mille cinq mm-hmm. ndax maa ngi njëkk di roy Baye Amar Baye Amar Diouf. ndax xam nga dañoo bokk dong yi ne ci daara ji rek bëgg xasaayit li léeg-léeg ñu nekk ci kuréel gi ah. léeg ñu gis Baye Amar mu neex ñu ñuy roy Baye Amar le cinq daal nan commencé nag da di roy eh, eh, eh, kii di si nakasa sàmm waaye nag suñu borom dimbali nu si nag mm-hmm. ban dugg ci eereb akasa gi rek suñu borom dafa nañu ci tawféex xam nga ci dara ñu bari xam nañ ci dara waaw waaw loola nag euh, ñu jàpp tëbaay ndax xaside yi moom tànk kanam la am amu tànk ginnaaw boo jàppee tëbaay lank ta dëpp rek daanaka da nga am lu kawe sa njort ci xasaayit waaw waaw waaw waaw jërëjëf xaadim euh, euh, wax dëgg yàlla fii ñu toll nii dégg nga ci sant gi nga xam ne ñu ngi koy sant yàlla dégg nga maam tey ñoo ngi jëm dégg nga ci bis bu tedd mooy bisu poroxaan de nga kenn ku ne xam ne ah rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dégg maam ah moo ngi wax dégg maam ci jigéen ñu baax yi dégg maam doy na ci jigéen ñi nga xam ñu baax ci àddina dégg nga Mariama bintu Imran dégg ak Xadijatu bintu Xawdin dégg maam ah, ak ki nga xam ne ki dégg maam Fatimatu eh, bi nga xam ne mooy Fatimatu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dégg nga waaw ak ki nga xam ne ki dégg maam mooy Sayyidatu im eh, eh, di imratu dégg maam ah, Firawna mooy soxna na mu ne ñeenti soxna yooyu dégg maam wax nañu ci àddina daan ñoo ci gën waaye defe naa ne ñoo ñëpp. biñu wéxé amna am xamné ne ki dé maam daal na gën ñoom ñëpp muy kan muy soxna maam jaar fi lay buso borom poroxaan koku nga xamné soxna soso nga xamné waxuma la dara dé nga ji bénn jigéen bo xamné ne mom mo am bénn bis magal, dé nga kenn ku ne xamna na ne rek mo am bisu magal bu toll ni bu am de nga kenn ku ne xamna na ne mam ah euh, su mamour an seli ma nga deqale dégg nga ah du dëgg waaye màggalu poroxaan dégg maam ni mu toll ak jigéen joo xam ne moo am teen bu mel ni teen mu soxna maam jaare boobu jigéen ñi di ko rang dégg di ci rotum ndox dégg moom rek moo ko am dégg nga soxna jaara rek moo am dégg maam jigéen boo xam ne bi moo taxaw sëriñam ne ko téyel ma sàkket mu téye ko muy taw mu fanaan fa ba fajar dégg mu ñëw fekk fa mu ne ko looy def fii mu ne ko yaa ne woon téyel te ne ma bàyyil dégg nga jigéen la joo xam ne ji mooy jigéen ji nga xam ne moo jëloon xar gaalam ngir tàngal kafe ngir sëriñam dégg kon jigéen jooju dégg maam kon war nañ koo rey kooku mooy kan mooy soxna maam jaara Bousso loo wax ci soxna maam jaara Bousso soxna jaaratu borom Poroxaan Mariama Bousso de moom nga wax noonu eh, li gën a yéeme te gën a doy mooy jigéen yi àdduna bépp dama naan moo ci ëpp pas-pas loola naan innal fawaida ala qaida mm-hmm. pas-pas mm-hmm. ku jàll ko ne moo la jàllale soxna jaar nag pas-pasam mm-hmm. jigéen dootu ko ci àdduna pas-pasam ak yéenam ak bëggam lu baax jigen do ko yor manes manes nako yor nak nag. waaw waaw waaw ah, mënees na roy nag. waaw nag waaye def ko ba melni mom mom jom na. waaw ah. kon lo wax ci mom de nga ci jang mi. soxna jaar bu sooyi bu sabali baali. soxna jaar ya sooy bu sa baali. jaaraabu maam jaara. jaaraabu maam jaara. mom maam jaara ma feri poroxaan. yëg na ko dee ngi di tem bay coroxaan soo jaar yetoo bismillahi tey maa jug fi ngeen gi lin si na way ñu ma jommalul boppam jaar bi sooy jaar war naa tax ku jigéen nangul sëriñam tekki say takkaay di ko jox boo juree mu dib yaaram soo jaaree war naa tax ku jege bi nu xaadam ngir moom a nga xaadam te sigil na kër maaram soxna jaariyatu sax li mu jëf jigéen mënu ko jëf waaye nangoo jee danu delu pay kuy jëf soxna jaariyatu ah, bu sa baali gannaare tëm nanu gannaare tëm nanu gannaare tëm nanu ba naan ba manni yaay mamulaan sa ndox yaay ndam laan sa ndox xajul ci xandi soxna jaaridu sa liggéey bi ñëpp ngi waa fuuta sax fu teeku nan waa fuuta sax fu teeku nan doon sa gan maalum soxna jaaretu sax li mu jëf jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daana dale pay kuy jëf soxna jaare bi soo sa géej gi attan bi daw lu ma seen bërëy rëy du tee ndoxam may baw soxna jaariyatu soxna jaariyatu sa géej gi attan machine bi daw lu magi ba daw lu machine ba rëy rëy du tee ndoxam may baw soxna jaariyatu sa doom bi géejul mu sa yónni sa doom bi naa ne xaadima yónni kun mu sa yónni soxna jaariyatu soo jaare bu soox جرا مم جرا جرا مم جرح كفنا خرباخ يرياك ورل صدام فين لقباخ جرا مم جرا في كفنا بيدني ياك ورل نصدام بيوم الجني جرا مم جرا جرا مم جرا في الأقباخ يا يا يرياك يا يا ورل ndax sa doom feñu lu bax soxna jariyatu jikko yi may beugalim yow amoo leen te jigéen ñu bon ko yor Mariama yow yaro leen soxna jariyatu jikko yi may beugalim lim bu so yow amoo leen te jigéen ñu bon ñu ko yor soxna jariyatu yow yaroo leen siisoo iñaanoo siiso iñaanoo dadaawoo bootu doo ko defar mariyaama buso buso maali soxna jaari buso noonu xarit la yamale junneeg dërëm la yamale gayndeeki xar la yamale kenn du ko jommal mariyaama buso soxna jaariyati buso baali ragal na yàlla boroomam soxna jaari buso buso baali ragal na yàlla boroomam topp rasulullahi xool ci moom Top na bamba roy chuma moom nga yomi soxna jaar bu sok borom jere jeuf ah loolu day dama wax ne ku deg loolu xamne de mo nga xamne soxna jaar bu so bokkul la kenn kokku de mam mo sigil der bu ñuul barke Cheikh Khadim waaw ni mu sigile der bu ñuul ndax la bo xamne bi de mam ah der bu ñuul la yor waye de mam wane na xamne li der bu wex sax mënuko der bu wex sax mënuko dégg nga loolu mooy wane ne dégg nga maam doomam ji bokkul ak kenn muy xaadimu rasul dégg nga loolu mooy wane ne ndeyam bokkul ak kenn dégg maam muy kan muy soxna Assa ndax damaa wax ne ah jigéen ji yar soxna maam Jaara Buso dégg nga kenn ku ne war nga koo bàyyi xel damaa wax ne lii nag jigéen ñi war nañ cee roy de jigéen ju ne lii ak saa mii wax dégg nga ci soxna jaara ci jikkoom yi jigéen ju baax ju ne war na koo roy ndax soo buggee doom ju baax soo buggee dégg maam loolu liggéey mu barkeel dégg maam da ngay roy soxna maam jaara buso ndax kooku rek moom moo jata roy dégg ah jamono bi ñu toll nag ñoo ngi war a dem ci poroxaan waaye dem bi ñuy dem ci poroxaan tamit nañu xam ne jaamu yàlla la liggéeyal soxna jaara buso la nañu xam ne tamit dégg maam yére yi ñuy wax soxna jaara solu ko nañ koy jox mooy ay jullit soo buggee lu baax dangay joxe lu baax bu nu seet yére yi nga xam ne dégg maam danoo dem ba màggat ba kii dégg di ko yónnee ku mën da ngay xotti lu bees joxe ko dégg maam boole ko yëkkat sa alal dem te soxna jaare jëf jël la lu ci waay jëf rek dégg maam di nga am lu kawe sa njort kon su ko defee rek sëñ ak saa itamit dégg maam ñu bëggoon rek dégg nga nga dolliwaat ñu tuuti rek ndax waxtu yi daanaka jot na dégg nga seet nag foo nu mën a làmbal dégg bu ko defee dégg maam ñu ñu léegi xam naa ne émission mën a kii dégg ñu mën koo نهني حب الله يحمل محيمن عن الميلاء مغتيرا والحق أخمن نبس لقابا لمولاي وحده خديما لمن عندك كلت ألسن نست بنا المين بالحق ماديا لفدنا على خلق ونحن ديدن ونحن ديدن نفدا مع ذكري وشكري خادما لغير الله نحمل حسين المسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نبي خريب شاكر وهو ذاكر داب كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق شنو نبي بلا خس عالم معلم سقي بلا من كلام يلين نجيب نجيب ناسب وهو ناسك ولن ناحي لسي خير من نقيب رقيب مستجيب مصحسب مزيد ملاس وهو ماحن ومحسن نسب ناسب صوت يا مخدم هو الناس والميسان نحمل من مكن سينك بوال سالم جلف سونينك أكبرك بلف تخنا نيب حم حرف سجلنا الإسلام صغنا جاريته سجلنا الإسلام صغنا جارة بسو سجلنا الإسلام مريام بسو صغنا جارة جارة صغنا جارة ما جارة كن صغنا جارة ما جارة صغنا جارة ما جارة كن doom nga Bamba moo ma taray doom nga Bamba moo ma taray ba nga bàyyi tey sellal mbër mi yëkkatib loxoom taxawal diine lislaam àndul ak lu dul xalimaam yëg ca kaw xalimaam àndul ak lu dul xalimaam yëg ca kaw tunu jeewal ay borom Tuuba ay borom Tuuba walla ko yellaan doomi soxna Jaara Buso amuloo koo nawloo diiwaan nga solo fawqa samaay ahmadul xadim waaju ko wéetal mu doy la wéetal di la wamatal xayral anaam borom tubaab ay borom tubaab doomi soxna jaara bu sow borom tubaab borom njaarim seyxina al xadimi moodu mbakke baari si ahmadu bamba xaadimal mustafa xayril xadimi xayril xaakimin sunu jàmbaar jëfa Tuubaa borom jumaa ju mag ji borom kaymil bi borom fulku bi borom baraag bi borom jom ju mat ji borom yëri yu weex yi Seexul Xadiim borom Tuubaa way yaa ko yellool amuloo koo nawloo diiwaan nga solo faw xasamaay <laughs> jërëjëfati ah xool yëpp sedd na xanaa nii seetaan dégg maam kenn ku ne xool seet na ci aksa mii kuy nag moom mooy aksa dégg maam seen dégg nga ah, xaadim aksa seen dégg nga di setu bàyyi naar sa saa naar seen moom sëñ fàllu waaye damaa wax ne euh, sant nañ bu baax a baax suñu xol seet na yi tamit dégg nga wax dëgg yàlla koo xam ne kii dégg maam kuy déglu ku ne dégg nga dégg nga te xam nga ne dégg maam kooku kenn gënu ko waaw lu yàlla bind Seydina Muhammad a gën waaye lu yàlla bind Xaadim Rasul moo man dégg nga kon su ko defee eh, dama bëgg dégg sa kàddu gu mujj rek dégg mam nga tagu nuyo dégg mam ñom Maurice dégg mam Murtada ak gaay yépp rek dégg mam nga siyaar dégg wa kay waaw. non ci santat baax baax sax. bu baax euh Baye Cheinou. yow man ma gërëm ken yow lay ko gërëm. Ah, ndax eh, Baye Cheinou si yow da ngay eh, suñu baye bo xamni mm. da nga baax. bëgg say dom mm. te di leen jappalé lo ne lu ne rek. wo nga nu ca. Eh, eh, eh, dama ko waxtaan ak seigne Mourou Ndiaye mi nga xamni ni muy suñu Mourou Moutara nga xamni ma taxaw mom ñepp xam ko nak ab taxaw bu agge fu ñaar fukki at rek yàgg na te deug la dama koy waxtaan ak mom ci ceew lu bare bare yalla la baxal ah, ku melni yow nak des ko war di ñaanal rek gudd fan gu ànd ak wér gu ànd ak tawféex suñu borom dole sak man ci barke Serigne Touba khassay di ah di ziarit baxit it mbokki jànkatu xasida yi bokkal nekk fii Thiès Eh, eh, di seenu mag eh, sëriñ ma Samba di ko baax ma xol bu rafet di ko yaatal di ko woyof noonu it nañ siyaaree sëriñ Moustapha Seck moom it di seenu magum jànkat waaye di ko baax di ko doon ko nu jàppit ndax man xaalis nu wax naan jàngul xasida yi ne Cees hmm. ñëpp samay xarit na man loolu laay loolu laay wax dama naan jàngul xasida yi di ne Cees ñëpp ma bëgg ñëpp ma jàpp ñëpp ñëpp baax ci man waaw kon nak euh, euh, bu nu siaré sin Moussa ak sin Mama Samba euh, sinu sinu ndjay ak gaa jankur yi ba ci sama xarit bi di sin Muhammad Ñang sin mut Ñang mom ci nak saa sam ñi may roy waaw mo japp sam loxo japp ci loxoom boolenu kóllëre gu yag ah ku baax waaw waaw jàmbaare bari Bara Cissé jàmbaare sëñ Jóga Cissé ah, di ko yàlla baaxal ko ñala gudufan diko ñala ah wax ah, ah, plateau bi betena waaye li muy bett bett mbégte la làmboo ba fees waaw mbégte la làmboo ba fees waaw yan yàlla du la xéwal yi jërëjëf <laughs> kon ah, yéen gis ngeen ko dégg nga yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi dégg nga kii mooy ak Khadim ak sa seen dégg nga Cees gii la dëkk jànkat la yéen ñu nekk dégg maam ah ba Chine dégg nga sëñ Saliou Babou ak sa ngoog dégg nga waa Chine yëpp dégg maam dañ ko gis dégg maam waaw waaye Ibrahima Tine dégg maam yow mi nekk dégg nga Espagne tamit dégg maam ak mboole mbokk taal bi ñoo ngi lay siyaare bu baax waaye ñoo ngi siyaare dégg nga Ibrahima Dramé dégg maam ci moom tamit dégg nga ak mbokk taal bi nga xam bi di siyaare tam Cheikh Awa Balla si dégg nga France dégg nga ak Soxna Fat si dégg maam ah ci Nantes ñoom nga xam ne émission bi ñoom ñëpp dañ koy seetaan waaye ñoo ngi seet ñoo ngi siyaare tamit dégg maam ah Sël mu Jaxate moom it ca Côte d'Ivoire dégg nga ak waa Mali ak fu waay mën rek nga xam émission bi dégg maam tubaarkalla dañ koy sétane mu intéressé len lool ko xam ki kii dégg bëgg bo duggé ci YouTube bi rek bo défé 3W def point def Prestige TV émission jamm doy di nga gis dégg maam Cheikh Ousseynou sinar borom Touba su ko défé dégg maam ñoo ngi leen di wax yalla nu yalla may dégg maam nu fekke dégg maam ah proxan gi nu dem ci jamm ak salam di siaré bu baaxa baax dégg nga maam daaira nehmat rabbal alamin dégg nga bu Touba de nga parcel de nga ak daire mam jaara Bousso dégg maam nga xam ne ñoom ñoo nekk Touba parcelle dégg nga Baye njaay di leen jiite dégg ak sëñ moon Ndiaye ak sëñ Massamba dégg nga ñu ànd koog ñoom seen motalaat ñu yor kuréel gi dégg nga yàlla def na dégg maam soxna Ndey Diouf di setu buur ku mandoo feen Diouf dégg maam di seen jëwriñ dégg maam ci daayira bi ànd ak soxna Jaara ñoom soxna Jaara mbub dégg maam ak soxna Ndey Jong ak dégg nga soxna euh, maam Jaara Jeng ak mbooleem maam Jaara yëpp dégg nga daayira bi dañ koo joxoon dox na soxna Nafi Seck soxna na fi sekk sekkeen bu ñàkk sikk la dégg maam di taal bu baax démb suñu daayira bi tubaarkalla ah sëñ jiili moom sëñ alaaji maam Cerno Mbàkke moom maam Cheikh Awa Balla dégg nga fa la nekkoon dégg ma ak sëñ Baara dégg nga maam Fall dégg ak mbooleem jànkat yi ñoom taaw mbay xale yi ñoom ñëpp dégg nga maam teew nañu dégg nga maam démb wax dëgg yàlla noo ngi ñaan daayira bi ci liggéey bi nga xam ne dégg nga noo koy def yàlla na yàlla jëme ko kanam dégg nga mabay tamit ñoo koy sant bu baax dégg nga xam ne mooy tulandoo dégg nga maam jëkkëru dégg soxna Naf Seck dégg nga ak soxna Faama sekk ak ñoom ñëpp bàyyiwunu kenn daayira bi dégg nga maam ñoo ngi leen sant di sant yi tamit dégg nga maam daayira bi maam jaara Touba som nga xam ne dégg ñoom aboo ak ñoom Yamar Seck dégg nga ñoom ñëpp dégg maam ñoo ànd ci liggéey boobu ak soxna Ndeye Khady ñëpp dégg maam ak soxna tuuti wax dëgg yàlla ñoom tamit ak mboolem daayira yi nga xam ñoo nekk ci biir Sénégal ñoo nekk ci biir réew mi dégg nga di daayira maam jaara yi ak daayira yoo xam ne rawatina dégg nga mooy bu naafi fii ma daay saafi bi nga xam ne sëñ Saliou moo ko tudd te sëñ Ndiaga teggin nekk ci bopp ba dégg ànd kook ñoom Alaaji Mun Ñang ànd koog dégg maam mboolem ñoom taala pen ak mboolem jànkat yi di ñaan sëñ Ablaye Touré yal na yàlla doo leeram dégg nga ah ci barke Cheikh Khadim di ñaan mboolem mbokk taal bi yëpp di wax ne ñoo ngi leen di seereel na dégg nga ñun de suñu xol sedd na bu baax a baax waaye dañoo bëgg yéen tamit seen xol sedd bu baax rek ngeen xam ne nag émission bi seen émission la yéen a ko moom dee leen ko seetaan waaw dégg ko seetaan rek émission bi dégg nga maam yéen ko moom incha allah te lépp bu soobee jëm sëñ Tuubaa yéene Pape Doumbouya dégg nga bu mu matee rek lépp dina baax dégg nga ñoo ngi sant ñëpp waaye ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi ñaan ci barke borom Tuubaa yàlla mi nga xam dara teew ko yàlla na nu yàlla may dégg nga kattan may nu wërsëg bu nu mën a demee Poroxaan dégg nga sëñ Moustapha Mbacke imaam Poroxaan ñoo ngi koy siyaare bu baax ak sëñ Cheikh Mbacke ñoo ngi siyaare bu baax sëñ waa kër sëñ Moussa Naawel gépp dégg nga noo ngi siyaare waa kër sëñ Basiru gépp kenn ku ne xam na ne dégg maam euh, poroxaan suñu demee suñu kër yee foofu dégg maam ah fu nekk rek suñu kër la mboole mbokk taal bi ak mbokk daari maam jaar yi ak soppe yi dégg nga waa kër Sëñ Taal Touré yëpp dégg maam fu ci dem rek suñu kër la xool leen kër gu day dégg maam maam jaara googu ca poroxaan ñaata juróomi téeméer yi soxna yoo xam ne dégg maam ñu yor leen di leen jàngal diine xamal leen seen togg ak ñaw ak lépp lu jigéen war a def boole ko jàng alxuraan ak xam-xam man leen kooku ku ci def sa dërëm yàlla de yàlla moo lay fay de barke Cheikh Khadim nañ ci jàpp bu baax te ni góorgóorlu si te yàlla defal nu dem gi tamit ku ci waaye man dimbalee dégg nga dimbale ko dégg maam bu ñu mënee luwee ay bis ñu luwee ay bis jox ko dégg maam mbokk taal bi ñu dem ñu jënd ay ceeb jënd suukar jënd warga jënd kafe yóbbu te xam ne màggal gii dégg maam lu ci waaye def jëf jël la barke borom Tuubaa su ko def rek dégg nga noo ngi sant dégg maam Xaadim ak saa mii dégg nga si bi suñu doom suñu xol seet na baax baax ak ñom mbay mbub ak bolem jankat yépp ñoo ngi leen sant ñoo ngi leen di gërëm di wax nak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو عمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو عمد